jërë ngeen jëf salaamaaleykum ami internet fekke TV ami internetu jël TV jël bi TV tey ñu ngi fii arène nationale nee naa la fii la combat di taxawee fii la yuy neexee di taxawee fii la yuy naqari di taxawee fii la yuy yamambaar yi di taxawee waaye nu ñu jëm ci 18 janvier muy bis bu rëy bisu Ouzin production mu taxawal na ci nag ay xale yu doy waar nee naa ko bi yoon dafa tas ndax fu ne comp na fa mbër daal di koy indi dugal ko ci journée bi waaye nag ñu ngi ak ñaari champion ki nga xamante ne mooy mag ngal kokki nee naa la mag la ci Bib Diop te Bib Diop mooy njool mu ñuul mi waaye nag mi ngi daje ak ki nga xamante ne mooy fils de booy Gueye fils de Boy Gueye ak Ngal Koke fils de Boy Gueye nuyu naa. waaw matuñ ñoo ngi lay fay waaw di la ziar di ziar ñëpp daal ñi nga xam ni di yenn seetaan à travers fépp fu nekk suñuy fans waa di ziaraat ñëpp daal di nuyu waa Thiaroye ga nga xam ne fa laa jógee waa Yëmbal waa nu Ndiaye. waa di gërëm sama dëkk waa Njaaraw waa yëmbal ñaari yëmbal la lool du problème après ñu kii ko man bawal laa dëkk mais damay bëreeg booy bawal yi loolu du problème. Eh, ayca ngal nuyu naa. waaw maa ngi lay fay di la siyaar bu baax a baax matu di nuyu ñi taxaw fii ñëpp ñu ngi leen siyaar leen jox seen wàccuwaay di nuyu yëmbal gi ma jugee leen siyaar bu wér a wér yëmbal gi ma jugee naataange ñu ngi leen di béggee bu baax a baax ak bépp ay see boo xam ne yaa ngi biir yëmbal. mu lay bah bu baax a baax di la nuyuwaat baax matu waaw di siyaaraan ñëpp waaw. mais ngal da ngaa dégg da ngaa dégg mu tudd yëmbal rek nga bëgg mel ni ku koy bëgg a dagg moo tax. waaw yëmbal moom buñ ko tuddee yëmbal suñu dereet la loolu moo tax bu ko nit tuddee rek waaw daam lu muy def si ñun na ñun fa lañ juddoo yaroo fa ba kon bu ko nit tuddee rek te dafa doy waar. mais Boy waaw dara dañoo war dañoo ñëwoon fii nii doon am lu ñuy seet suñu combat suba yi xam nga rek Fatou Balla Gaye yi xaw a am jaxasoo. waaw far combat taxaw fi maag fils de boy. staff ko waaw loolu staff baa ngi fi. Ah. baa ngi ndax buñ nee laay rek daanaka staff baa ngi fi. Uh-huh. laay Dakar comme que mi ngi fi te daanaka moom lañ waxal waxtaan ak moom. Mm-hmm. combat bi jaare fi sotti. waaw kon waaw ñu ngi sant rek waaw. xam nga xale bi xamuma ko. sew di sew diis la du problème tey laa ko xam mën naa sewit bañ a diis. Ah non sew diis la de. non mën naa sewit bañ a diis. champion la fi daan. loolu lépp du problème. champion la fi daan mais champion koy daan. Eh. waaw foo teg di teg loolu. yàlla xam na ni kii moom xam na ni maa ko man foop hmm. dama ko doon yoor nag boobu ba léegi muy wax ay waxam. ma bàyyi ko si biir maan ñeme nga ma di kii kii gan gi. su bis baa dama lay duma ba pare soog laa daan. sa gis nga gis nga wuy ma wuy ma doomu aadama xool ma fii dama ne doomu aadama xool da may xool bul xool fee xool ma laa yow laay waxal dama ne doomu aadama fexeel dama ne doomu aadama doomu aadama nay fexe chaque jour lu muy wax lu nekk na koy jëfe sama diggante yow bëgguma si jàmm bëgguma si lu sedd waa di wat nak sama yaay ak sama papa dama len non. egalel wax ji ngay wax nga ne sama yow bëggo ci lu sét bëgguma si dara lu sét yëmbal la dëkk fa laa juddoo fa man maa la ëppale yëmbal man bi nga xam man étranger bi nga xam dama ñëw. dëkk ci yëmbal té mom am ñu am titre. dama ñëw dëkk ci man man dama ñëw man jaaraw la dëkk. wa amul problème mais damay dalal man nga ko. ñun yëmbal lañ juddoo fa lañ màggee ba toll ni ñu toll ni bir natangé xam nga man maa nga cosaan man maa nga cosaan maa la ëppale fop fop fop si yëmbal. déggoo ma de yow wax jii nii ngay wax nii wallaahi bu jour lamb yaa dina la coûter cher. Er, ma jeekoo bu ma baal ndax man du jeekoo du mooy du la yërëm de yàlla seede na du ma la yërëm. luy baale ci ñun yow xam nga ne waxuma la ay waxu jeeku de ñun bañ la jeekoo moo yàgg yow lu toll ne. amul problème loolu amul problème. xolal du dee jeeku nga ma bul ma baal ndax man du ma la mooy. déggoo ma de dama ne la dama ne la yow waxuma la ay jekkoog mooy de yow ku dul yow sax mënumaa daan waxtuma la yow. Ah, baax na ba bis ba incha allah. yow sax laa mënumaa daan. baax na te yow bu la leeree ne bu la leeree ne la làmb lépp luy lépp luy neexal làmb jeeg luy diriger làmb ji man maa koy def. Ah, léegi yow liy diriger làmb yaa koy def man maay daan incha allah man maay daan. déggoo ma de kii daan. lu leer laa la wax mënoo mënoo mën lu woo kii dafa baax rek di wax su duggee biir yëmbal doo moytuwul ñoom seen bopp deen ni ko est-ce que xam nga fils de Boy. tey le janvier du yomb de ak Ouzin Production face to bi tàng na neex na ay ca looy tàggatoo. matu damay santaat yàlla baax di julli si yonante bi di santaat sama waa dëkk di sant sama papa di gërëmaat sama yaay di sant sama papa di gërëmaat sama yaay. maa ngi nuyu sama papa depuis Saint-Louis di gërëm sama yaay moo nga njaaraw man boroom ñaari dëkk laa man doomu njaaraw laa doomu mbaltooñ di gërëm maan nag waa mbaltooñ waa tubaatul reefan réew maaw kër sambakan maa ngi leen di woo monsieur le maire Ibrahima Fall combat bi sa combat la Ibrahima Diop sama papa la combat bi moom combat la ak ñeneen ñi nga xam ne sama ndiyaay xaadim Moussa Ndiaye combat bi sa combat la Pape Birima noonu ak ñi nga xam ne doon nan lu neex naan xaar bi yàgg na waaye léegi mu ñëw dafa naa ñëw na kon maa ngi woo ñëpp waa di gërëmaat sama coach bi nga xam ne depuis ba ma amut combat ba léegi day taxaw pour ma am combat moom defe naa sax dafa am sax lu dox sama diggante moom muy kersa maa ngi koy gërëm baax Baye Matar yàlla ko yàlla fay waa di gërëmaat Tigo 2 nga xam ne moom laa àndal matu di leen gërëm di gërëm képp koo xam ne moo ngi bëggee Fils de di leen wax combat bi taxaw na nan yokku ñaani maa ngi ziar di gërëm ñëpp. mobilisation ñoo ngi koy waaj. yëmbal la dëkk de. waa amul problème defe naa du oto yi génnandoo yëmbal jaar Thierno Ndiaye est-ce que yesam dina jàll. Ah, ñoom dañuy mobiliser de waa yëmbal. non ma yëmbal laa dëkk du ma xeex de du ma wax si loolu. yëmbal laa dëkk doo ne dañuy mobiliser waa yëmbal rek damay jàpp ni ñun nga wax ah. waaw. <laughs> Aïcha wool waa yëmbal. waaw di santaat bu baax a baax di nuyuwaat waa yëmbal bu baax di leen woowaat ci kombaay yu baax a baax ndax démb niñ ko doon waajee am na doole trop mais bii moo ci rawati waaw di leen woowaat képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo biir yëmbal maa ngi lay woo bu baax ci combat bi nii maag Boy Gueye ci woo waa génération Lour naan combat bi seen loxo laa ko teg combat bi ñor na ñor na ma fonk naa ko seen loxo laa ko teg di leen woowaat ñoom ñëpp di woowaa yëmbal képp koo xam ne yaa ngi yeewoo naataange maa ngi lay woo ci combat bi di la wax bu baax nga ñëw jàpp ci comme ni ci doon jàppe waaw di woo monsieur le maire Bara Gaye Modou Mbène Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci combat bi di woo sama grand yi ñoom Biiru ñoom Matar kamara ñoom Wundi Fa ñoom Cheikh Ma Diop ñoom Ngor Yacine ñoom Youssou kamara ñoom ñoom ñëpp maa leen di woo daal képp koo xamante ni maanaam yaa ngi yeewoo biir yëmbal rek maa ngi lay woo ci combat bi di la wax ne combat bi sa combat la nga ñëw jàpp ci bu baax dooleel ma ma jàpp gan gi laxas ko waaw kon ñu ko doon defee incha allah. waaye ñaari kii corps ñu ngi fi matu eh, xam nga dafa woote sa incha allah damaa war a woote waat ñeneen ku si mel ni monsieur le maire Bara bu yëmbal sit mooy sunu dama ne baal baal baal ku si mel ni ñoom Papa Ndiambe ñoom seen Sène Amadou Hott sama combat bee jàll da def lu am solo da see jàpp Bara ñoo ngi lay woo nga jàppaat si combat bi nga gën see jàpp di woo waa Jifir waa Samba Dia waa Fimela Palmarin di wax fépp koo xam ne yaa ngi bëgg Fils de Boy Gueye ak fépp foo nekk ñoo ngi lay woo si combat bi nii ndax combat bi ñor nañu trop trop trop di woowaat encore plus fois waa Bawol waa Njaaraw ga nga xam fa laa dëkk waa di leen woo waa Njaaraw ñëpp mbaltooñ maa ngi leen di woo jaajëf. ayca nag Ouzin. xoola Fissel Mbaraan Fissel Mbaraan tund Fissel bi sant naa leen bu baax ndax démb gis naa ni ñu ma doon taxaw bu baax a baax pour suba suñ combat bi gis naa taxawaay bi bu baax a baax a baax a baax mais bii moo ci rawati maa ngi leen di woowaat bu baax a baax di leen wax waaw niñ ci doon jàppee rek niñ ko jàppee waat waaw tund fiisel bi yëpp join maa ngi leen di woowaat bu baax aw ma seen fay yàlla mi am seen fay yàlla na yàlla fay tund join bi tamit maa ngi leen di sant bu baax a baax caajaay maa ngi leen di woowaat ci combat bi bu baax a baax seeseen maa ngi leen di woowaat bu baax a baax di leen caaraat bu baax a baax di leen woowaat ñoom ñëpp ci combat bi comme niñ ko doon jàppee rek jàpp gan gi waaw laxas ko mooy loolu noonu ayca jërë ngeen jëf Ouzin nag da cee ànd ak ki nga xamante ne mooy Kandji production borom te TDR ku fi tëgg combat ndeysaan mu jàppale la mu ngi ci ànd ak nag waa union régional mutuelle de santé ki nga xamante ne mooy Moustapha Mbengue ñu ngi ci àndandoo bu baax a baax a baax a baax Ouzin nag pare na pour combat le 18 bi képp koo xamante ne yaa ngi ci mbër pare na pour may la carte bi ndax feebar faju ci askan bi la bokk di gërëmaat ñëpp di santaan ñëpp waaw di gërëm idi sama idi gërëm naa baax a baax a baax <laughs> makan gërëm naa ko baax wax borom fekkee TV di gërëm Baye Mass borom jëll bi waa journaliste yi Ouzin nee nañ nga may leen carte ku ne waaw nee na nga may leen carte ay ci jërë ngeen jëf ba le 18 janvier